jàmbaar la as góor la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggug baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare di maamam sëtub maam Demba Njaay njare la kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan jërëjëf kon mbokk yi nga xam ne ñi seetaan biñ ñu jógee ci waañ wi ñu ñëw fii ci waañu Ahlou Café fekk fi sunu jawriñ yi ñu mel ne ñu ngi fi fekk Serigne Cheikh Ibra ñu leen laaj moom nan la ñuy waajalee bis bi ak kafe gi ak lépp loo xam ne moom lañuy ñuy soxla café ci màggal bi ñu koy laaj Serigne Cheikh Ibra na xam ne jawriñ la ñu fekk ko fii ci waañ wi bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu leen nuyoo di leen masawu coono yi di leen baalaax bu baax a baax. waaw comme li ñu laaj nii dañ sawar si toon si. comme ni ñu waajalee café gi bin xëyee suba raxas nañ suñuy bagage ñëw raxas suñuy ceer raxas suñuy cin ba séenee waajal daal di segg café ngoon gi ñu war a séddal si ngoon gi buñ paree tamit daal di raxas suñuy bagage ba séenee xaar suba gi ñu si ànd ak suñ Seexu Naafaal ak suñ Seex Jóob ak suñ Moustapha Jóob ak suñ Baye Saalihu Ndiaye ak siyaasaan ñooñu lañ si àndal liggéey bi nag bin xëyee ba léegi ndaw ñëpp ñoo ngi si liggéey bi ndax liggéey bi daa bari ay ndaw te soo kawe riir mi day bëri torop moo tax ndaw ñëpp fi lañ jubal si waa di ko santee yàlla nag ndax ndaw moom fu nekk rek ba am cofeel pour liggéey si dañ koy sante yàlla ndax ñoo ngi leen di téye di leen tàggat di leen jàngal liggéey bu bu baax a baax kenn bañ ci am fay di leen wan yoon wi ndax ñun ñi njëkk leen si tamit suñu mag ñoo fi nekkoon te bañ fi nekkee dañu daa tàggat nampatal ñu si yoon wi ban xam liggéey bi ñun tamit loolu lañ bëgg a def si ñoom ban xam liggéey bi ñu bàyyi ko ak ñoom ñu doxal. jërëjëf kon bi ñu jógee ci Serigne Cheikh Ibra ñu ñëw ci jawriñ ji di Serigne. naa Fall ñu di ko laaj moom tamit nan lay ñuy def ci kafe gi ak lu ñuy segg si kafe ak lu ñu doxalee ci kafe gi ak nu ñu koy seddalee ak ndaw yi nan la ñuy duggee ci biir mbooloo mi pour di séddale kafe gi ak li nga xam ne limu kafe bi daal ñaata la tool bëgg nañ koo xam. waaleykum salaam wa rahmatulah waa kay soxna ngi sant bu baax suñu borom subhaanahu wa taala moom mi ñu tawfeexal ñu fekk woon ko daaw nag ni daaw ngeen fekkoon ni fii ak at ko jiitu ngeen fekkaat ni fi ren. yàlla na ngeen ñu fekk at yu bëree bëree bëri barkeb Seexul Xaddim te mbooleem jëf yi yëpp suñ borom nangu ko dafa nangu ko mu ful ko dafa ko fulee mu dencal ñu ko fu yàq yeggut ñoo sant bu baax comme ni nga ko waxee liggéey bi moom ni ñu ko baaxoo defee mooy mbooleem kafe ak màggalu Sëñ Daaru lépp fii lañ koy seggee buntu kër yëpp ñoo leen jox kafe yi tam eh, bu ñu xëyee lañ tàmbalee segg bi nii heure bi waxtu jot ñu yóbbu sa kilifa yeeg kafe ngoon gi continuer segg bi ba guddi insha allahu taala bu ñu xëyee doog àggalewaat noonu lañ ko baaxoo defee kafe gi tam bu fekkee ne ren liñ li ñuy segg li jëmmi li ñuy segg téeméeri kilo la waaw ah, téeméeri kilo la ah, bu fekkee ne beneen bërigo bi moom mooy def jaayante yi nga xam ne moom la nit ñi indi ndax at mu jot nit ñi itam dañuy indi ay jaayante yoo xam ne dañ leen wax buñ ko sukkar buñ dikkee ñu mën koo boole ak kafe gi nga xam ne moom la ñuy segg ngir fanaanee du mën a yàqu ñu ànd ko it ay ndaw sawar lool yoo xam ne wax dëgg yàlla nangu nañ nangu goo xam ne fu ne leen fee la rek ñu ne fala eh, ni ñuy baaxoo di ko defee organisation bi daa yomb ci ñun lool ngir yàgg gi nga xam ne yàgg nañ ci liggéey ak waa commission bi mooy ni rangalee table ni si bitti benn bu ne ñett nit ñoo si ne ñaar ne si kopp yi kaas yi di ko raxas kenn ki mooy kab kafteer bi ak soow bi di xelli loolu moom li nga xam ne moom lañ ko tënke bu ko defee ni nga fekk ñuy segg nii itam day am ñoo xam ne du gi ne dañoo teg ceeri nii rek kenn ku ne di segg ñoo ñett nit ñoo xam ne ñoom ñooy féetewoo di segg loolu ñoom ngir ngir kafe gi mën a jaar yoon waaye bu fekkee dañ koo def ñu ceeri day bëri ay ay cambax cambax mbaa nam nam nam war a jaare yoon du ko jaar yoon loolu mooy organisation bi lépp ñu teg ko ci leen ne kenn ku ne am fuñ ko féetalee moo waral ngeen fekk ñu ñu segg ci café gi waaw jërëjëf sëriñ Seexuna Fall ñoo lay sant baax di la gërëm ci kàddu yooyu nga xam ne moom lañ doon leeral muy mel ne moom mooy jawriñu waa Akhlu Café fii lépp loo xam ne ñi ngi ko fee seeg ci café rek ñoom ñii ñoo ko fee seeg comme ni mu ko waxee ne dañ fee tànn ay yoo xam ne tàggat nañ leen defal nañ leen ay formation yoo xam ne xam nañ bu baax ni ñuy defaree café gi ndax chaque année ñoom ñoo koy defee te fii lañ baax fii nii fi koy defee kon ñoo ngi ciy sant baax di leen gërëm tamit ci leeral yooyu nga xam ne moom la ngeen ñu indiloon yéen waa Akhlu Café ñoo leen sant baax baax leen gërëm di leen ñaanal jàmm bu baax di wax asalaamaaleykum wa jërëjëf jawriñ lu jiitu Seex Bamba feeñ lislaam la noote ñoo toqi daarul asan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko sóob seen yoon wu baax waati baayam bu baax ba turam waay Seex Muhammadu Njaay ñu naa ko moor laaj leen njaboot gaati ndeyam jayit ndey yonnen moom la bokkalu tur lu yàlla nam nga gis tànnam ga feeñ